billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim barkeb sëriñ Tuubaa xadim rasul mbokk yi ñu seetaan ci bitim réew ak biir réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare niñ ko ànd ak yéen rek ci uh, waajtaayu ko màggalu Poroxaan ba tey ñoo ngi fii ba tey uh, ànd ak yenn ci ay reportage ak jataay yu fasanti ko jëmale ko ci uh, dëkk bu tedd bi jëmale ko ci njabootu ko soxna si waaye jëmale ko ci dunduk soxna si ak liggéey bu am solo bi nga xam ne nii def na ko ci dëkk bi di Euh, ku wax poroxaan nag euh, wax euh, ñi nga xam ne ni mooy turandooy soxna jaare yi waaye ku wax poroxaan wax daaray soxna jaara yi ak daayira yi ñu ciy def liggéey bu am solo loolu tax na nag tey jii ñu ñëw fii ci kër soxna maam jaara Mbacke bintu cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke xalif général de Mourides nekk ci kanam fédération de daayira maam jaara di ab fédération boo xam ne nii ñu ngi amal liggéey bu am solo ci réew mi rawatina fii ci poroxaan ñu ne ci waajtaayu magal gi wala sax ñu ne ci digg magal gi dañ koy jox cadeau gi rek mu daldi di nuyoog mbokk yi ñuy seetaan ci rew mi ak bitim rew ñu door a dugg nag ci waxtaan wi nga xamne ni dafa jëm ci fédération daayira yi kon soxna ci ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox nga nuyonté ak ñu ni nuy bismillah a'udhu billahi minash asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ziar Eh, di leen balu ak di leen baal di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal di nuyu mbooleem ñi nga xam ne rek ñu ngi ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew di sant suñu borom bu baax a baax a baax a baax tamit ci eh, may gim nu may ñu teewee bis bu màgg bu tedd bi. jërëjëf soxna maam Jaara Mbàkke ci nuyoo yu eh, mat solo ci nuyoo yu am solo yooyu te matala lool niñ ko waxee woon léegi rek ci njàlbeen gi mu bokk ci njabootuk Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbàkke xalif général des Mourides. nekk ci boppu fédération des daayira Maam Jaara bu ñu waxee fédération nag mooy ab kuréel bu lëkkale ay daayira yu bëri soxna si buñ bëggoon a xam tuuti rek ci taarixu fédération boobu ak li ko tax a jóg lan ngay leeral mbokk yi ñuy seetaan bisimilah. jërëjëf euh, euh, ci laaj bi ñoo ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di nuyu mboolem waa Almouridiya di nuyu euh, jëwriñ ji Serigne Youssou ak mbollem ñukoy koy ci liggéey bi di leen sant nak bu baax ci taxaway itam yi nga xam ñing koy taxaw ci eh, yoon wi ak ci diina ji yëpp rek ah, eh, ñoo ngi eh, sant borom bu baax ah, fédération bi nga may laaj ah, ñing ko taxawal ci ndigal ci ndigalul Serigne Isaaxa mi nga xam mo jité fondation mam jara nek administrateur bi ci ndigalam la taxawale taxawalee fédération daayira Maam Jaara yi euh, lépp nag ngir bëgg rekk booloo gi ak nosu gi ndax day gën a am solo ndax ku ne xam na ne mbooloo mooy doole mu gis ne daayira yi Maam Jaara yi bari nañ lool waaye dañoo xaw a tasaaroo nag ci réew mi ak ci bitim réew nu nag comme euh, Dakar lañu féete mun nañu nañu dajale yi Maam jaare yi nekk dakaar ak li ko wër alhamdulilahi rabbil alamin 2017 la lañu ko waxoon ah ñu dajale dajale daayira yi ba am ci ab lim euh, vingt ñu dem seeti ko ne ko dañoo bëgg jëmmal dajaloo gi te jëmmal gi ñu ko bëgg a jëmmal dañ ko bëgg a jëmale ca daara jee ca Porokhane mu rafetlu ko sant ci gërëm ci waaye daan nañu nag da ngeen di dem ca daara ja bu ngeen demee ngeen waxtaan ak waa daara ja ci foo xam ne bëgg nañ ngeen féete leen fa rek ngeen jàppale leen fa bi ñu ko defee ñu daal di dem ca daara ja bi ñu demee bi ñu waxtaanee ak ñoom muy directeur ba sëñ Abo Madiana Jaxate ñu koy nuyu di ko ziar ak soxna maam Awa Dem mi nga xam ne mooy directrice technique ba ak mboolem ñi leen di jàppale ñu demee ba waxtaan ak ñoom liñ ñu joxañ mooy batimaa ya euh, batimaa ya nga xam ne dafa nekk ca daara ja euh, laaj yeesal waaye laaj laaj sax dolli ndax ku ne xam na ne euh, maam jaaratullahi mariam yàll na ko sun borom ba fayal dafa bëri ay turandoo lool te képp ku ko tuddee doom rek daara ja am solo am solo go xamne da ngay bëgg mu dem ca daara ja ñu sétlu ne euh, liste d'attente bi bari na lool suñu xel nekkoon ci lool nak waye ci ak sunu borom biñu éggé rek ñu joxat ñu lool ñu sawar ci nak lool ñu da tambali euh, di ci dox ak di ci wax ak di ci ak di ko leeral Euh, sunu borom dimbale nu nag daayira yi wuy sunu euh, ñu daal di ànd ñoom euh, di bëgg bu ñuy bëgg tamit ñu joxañ ñu benn bâtiment boo xam ne moo leen ca gënoon a ñor te mooy jàngalekat ya rawatina jigéen ña ñu daal di songu bâtiment boobee daal di koy eggale ñu ko eggalee ñu dem jébbale caabi yi sëriñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla suñ borom yàggal ca wéral ko bég ci lool ñaanal ñu daal ñuy soññaat nag bi ñu ñëwee itam bàyyiwuñu waaye danoo daal di àndaat rek ci administration bi nga xam ne ñi yore liggéey ba ñoo nga ca ñu song loola itam suñ borom dimbale nu ñu am luñ ca def donte bëgg nañ lu gën a yaatu waaye tàmbali rek la bañ jógee ci loolu itam ñu songu jàkka ja fa nekk euh, moom it dafa aje woon yeesal moom ña nga koy yeesal euh, eggagul ca la ñu nekk nag waaye mu des yu bëree bëree bari nag euh, ndax yàlla dimbale nañu ba am na ay mbokki taalibe yu sawar ci liggéeyal soxna si daan nañuy jël ay bâtiment fi mu ne am nañu fa ñaari dortoir yu egg ak benen dortoir bo xamne mi ngi en cours am nañ fa réfectoire bo xamne am nañu ko jël ba di ko liggéey ba sori na mom tam waye mu dess yenen ak yenen ak yenen yo xamne nun dañuy and ak wa daari ja rek ñun wa fédération bi waye nag ñi ngi ci talal loxo mbolé mbokki jullit yi mbolé mbokki talibé yi na daayira yi maam wala liggéey kat maam jaaray ndax sëñ Isaaxa bi mu ñu joxee ndigal li biñ ko seetee ba bëgg songu song liggéey bi danañu won na ngeen ko yaatal na ngeen ko yaatal ci daayira yi na ngeen ko yaatal ci mbokki julit yi waaye na ngeen ko yaatal sax ci képp koo xam ne rek bëgg na lu baax ndax daara ja ñëpp ko bokk ndax alquran rañ fay jàngale alquran julit yëpp ko bokk kon na ngeen ko yaatal ci mbooleem ku bëgg a def sa alal ci yoonu yàlla ñu ñëw ànd koog ñoom yéen kon noo ngi continue nag di woote rek mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taaliba yi fu nu mën a nekk te bëgg a liggéeyal soxna jaara bëgg a liggéeyal sëriñ Touba ci alxuraan ci li mu gënoon a bëgg mu ñëw ñu àndandoo yeesal daara ja comme mel nañ ko bëggee te yàlla rek tax. jërëjëf euh, soxna maam Jaara Mbacke ci euh, taxawaay bu am solo boobu nga xam ne nii wax na ko léegi mu jëm ci fédération des daayira soxna jaara Boussa ni mu ko waxee ci taarix bi ci ndigalu Serigne Isaaxa Mbacke mi nga xam ne nii ni mu ko waxee léegi mooy jëwriñ ji. waye itam euh, seen taxaway gëna rañeku ci daara imam jaara ji nga xamne ni mo nekk ci poroxaan waxna sax ay jéego ak ay jëf yuñ fa jotta def mu yeesalaat waye yok itam bâtiment ya di wooteet bolem juliti ak talibé waye soxna ci ku wax euh, soxna jaara yi wax ay formation professionnelle ndax ñu bari ci ñom buñ fa joggé yaakaar buñ amé ay formation professionnelle dana leen gëna jappandil bu baaxa baax formation yoyu ndax fédération bi jot na ci am ay réalisation am na ci ay projet wala lan na ci taxawagul. jërëjëf euh, ci laaj bu am solo bi euh, mu mel ne euh, formation yi lu am solo la ndax maam jaara yi yi nekk ca daara ja xam nga alxuraan moom ak jagle la am na ñoo xam ne buñ fa demee dañuy daal di mokkal daal di ñibbi am na ñoo xam ne dañ fa toogaat ab diir ñu téye leen di leen jàngalaat xam-xam wala di leen jàngal sax français am na ci ñoo xam ne tam dañ leen di daal di orienté ci euh, centre formation professionnelle ba nga xam ne ma nga fa te état bi moo ko fi def te muy lu am solo nag ah ñu di ca réaliser nag yu am solo ci produits locaux yi ñun waa fédération bi nag ñu ngi cee def lu nu man ndax ñoom la ñuy produire ñun am nañ boutique boo xam ne ma nga ca ndakaaru te jinaan Euh, lépp loo xam ne dañ ko fay jaay lu ci ëpp ëpp fii lay jógee ci euh, fan centre formation professionnelle bi ñu di ko jënd fii ci ñoom di ko jaayaat foofa waaye lépp luñ ci jëlee itam day delluwaat rek ci ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def kon loolu tamit lu am solo la kon formation yi képp koo xam ne itam ah, mën nga caa jàpp ci centre formation yi te lu mën a doon ndax ña nga ci yëpp ña ngay produire ña ngay def couture ña ngay def yeneen ak yeneen kon ku ca mën a jàpp itam ci formation yi loolu laa ma am solo la ndax da ngay jàng alxuraan ba pare jàng métier te loolu Eh, lu am solo la ci réew mi sëñ bi. Eh, xataay eh, jotaay bi mu ngi bëgg a yàgg tuuti waaye <laughs> ñu yokkat yeneen ñaari laaj rek benen bi ci togu muy fédération bi takkutoo nañ fasantikoo ci gox yu fasantikoo ci Ndakaaru ni nga ko ci njalbeen ñew fi magal si Poroxaan buñ bëggu na xam seen taxaway deug deug ci magal gi lan nga ñuy tënkan. jërëjëf sant sun borom baax rek ci may gi ñu may ñu téwé magal gi don ko wajal ànd kook sunuy mbokk sunuy mbokki taalibe rawatina daayira yi maam jaara ba egsi ci daanaka ci bis bi muy bis bu am solo muy fàttaliku soxna jaaratullaahi Mariam muy màggal soxna jaaratullaahi Mariam muy magal lu sunu borom magal, ta muy am solo muy lo xam ne nag war nañ cee eh, jànge lu bëree rawatina soxna si ndax eh, magal gi ko fi ñew rek war nga bàyyi xel soxna jaartu la mariam ca la taxone mu jog te mooy liggéeyal suñu borom euh, lam doon def nak soxna jaartulaahi mariam euh, da ko doon def te yalla rek tax motax euh, joge na fi bu waye mi ngi melne mi ngi fi ba legi li alquran di wax ne ñu bax ñi duñu duñu duñu dem duñu faatu fal fi lañuy dess soxna jaara nak bokku ci nga xamne suñu borom mo leen tan def leen nam leen def kon képp koo xam ne ñëw nga fii ci dëkk bi war ngaa bàyyi xel soxna si ci taxawaayam bu rafet ci digganteem ak sunu borom digganteem ak sëriñam ba digganteem ak mbokki taalibeem yam dëkkaloon waaye mbokki jullit yëpp muy ku bàyyi woon xel yooyu yëpp nag ak jikko yu rafet a rafet a rafet ci muñ ci yaatu ci gore ci tabe kon euh, képp koo xam ne ñëw nga fi rek war ngay bàyyi xel bu baax a baax a baax soxna si waaye li ci ëpp solo mooy lépp looy def lépp looy def ci màggal gi wala lu dul ci màggal gi sax nga di ko def te yàlla rekk tax ndax sunu borom rekk moo mën a fayee nii ndax yàgg na lool waaye sunu borom ak fayam du jeex te na mu toll rekk lay faye kon nañu def te yàlla tax roy ci soxna jaaratullaahi Mariam na mu ko doon defee ndax loola lu ama ama am solo la ci noonu. Euh, ñoo ngi santaat bu baax euh, waa Al Mouridiyyah euh, ci seenub taxawaay di nuyuwaat bu baax sëñ Youssou ak mboolem ñi koy jàppale di leen sant itam yéen ñi nga xam ne yéen fi ñëw tey jii tamuy la am solo ci ñun ndax nun bu nu sañoon li nuy def ñu di ko wane wane gi nag dara taxul waaye da am na ñoo xam ne lépp lu nu dégg wala ñu gis ko ci lu baax dinañ ci jéem a tàbbi kon euh, bu ngeen ñëwee fii laaj ñu ci fédération bi laaj ñu ci màggal gi loolu ama am solo la ndax euh, euh, ni ma ko waxee rek communication dafa am solo ñoo ngi sant nag mboolem mbokki jullit yi mboolem mbokki taalibe yi waaye rawatina ñi nga xam ne dama leen di woowee jàmbaar yi maam jaara yi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun ci liggéey bi guddi ak bëccëg suba ak ngoon seen temps bi yëpp ñu def ko ci euh, liggéey bi nga xam ne moom la ñu def li ma leen koy waxee saa su nekk ne bu ñu wootee ngeen ñëw bu ñu laajee ngeen joxe te xàmmewuñ guddi ak bëccëg te ay mag yoo xam ne ay ay mag a ngi ci waaye sawar lool ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal sunu borom. liggéey bi ñu ànd di ko def suñu borom ba euh, defal nu ak gudd fan ak wér te nangul nu ko làqal nu ko fa yàq yeggul daara jee ñu soobu itam ñu yeesal ko ba mu mel na mu war a mel ci nin ko bëggee te àndandoo koog mbokki jullit yi mbokki taalibe yi rawatina daayiray maam jaare yi noo ngi sant nag euh, sëriñ bi ndax euh, sëñ Isaaxa dañu ne daayira nekk Dakar waaye xam nga lu baax kenn mënu koo téye dem na ba ci eh, biir réew mi yëpp waaye dem na ba ci eh, bitim réew sax kon noo ngi sant ñi ci biir réew mi ak ñi sa bittim réew ci ànd gi nga xam ne ànd nañ kook noonu ci liggéey bi ñaan suñ borom mu nangul nu ko ci barkeb Serigne Touba ci barkeb mbaaxuk soxna Jaaratu la Mariam jërë ngeen jëf jërë ngeen jëfet soxna Jaara Mbacke eh, bintu Cheikh Mouhamadul Mountakha ci fàttali rek mu nekk ci boppu fédération des daïra Maam Jaara Bousso di amal liggéey bu am solo nag euh, ci askan wi rawatina ci euh, Porokhane ni mu ko waxee rek ci biir waxtaan wi doy na sëkk waaye itam euh, réalisation yi ak itam mébét yi ak projet yi itam ni mu ko waxee yaakaar naa ne dal na xel itam te ku nekk war na cee mën a jàpp ndax dara gënu ko kawe ci liggéeyal soxna jaaritullahi fii ci Porokhane waaye fi mu ko mujjee nag moo ëpp solo muy gën a soññe bu baax a baax ci roy jikko ak melukaanu soxna si nga xam ne nii moom la ñu fekk si tey di ko màggalal di ko ñaanal ak a sàkku barke kon ni mujjee doy na sëkk yobbal mbooleem julliti rawatina nag soxna yi nga xam ne nii ñoom euh, seen xel warul dem ci kenn seen royukaay warul nekk kenn ku dut soxna jaare mi nga xam ne nii tey poroxaan genn jigéen gu am bis bi mu am amu ko genn jigéen gu mel ni moom gisaguñ ko li ko waral nag du leen lu dut ni ko soxna si waxee jëfal boroomam topp ndigalal sëriñam ci lim neex suñ borom ba am lii kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko jéggul nag ci xat-xat bi ndax ñëpp xam na ne màggal gi xat na fekkoon ko nag fii fi nga xam ne nii foofu lay defee màggal gi ànd ko ak waa fédération bi di leen wax rek incha allah di leen seq ak yéen yeneen i jataay fii ci poroxaan ba mbokki taalib yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi ak bitim réew te ñëwuñu màggal si dara du leen ump di leen sant di leen gërëm di leen fasaale di leen baalu àq te di leen baal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu xol yaa ngi ruu yaa ngi sun cër yaa ngi lillahi yaa jar siyaare diraam tey sukk tey joxe hëddiya lillahi ngir maam jaaratullahi nangul nu suñ yéeni